gëm nañ ni procès bu amee ñoom itamit dinañ am ndam ci boobule procès euh, fii euh, ca palais de justice alors dañuy jëm a xoolaat beneen intervenant euh, sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi leen di fay. waaw maa ngi tudd El Hadj Babacar Tambédou. Hadj Babacar lan moo waral sa teewaay fii. waaw sama teewaay li ko waral mooy euh, dañuy am lu naqadi parce que dañuy jàpp injustement ay jeunes yoo xam ni dañ doon manifester mu nekk benn droit boo xam ne constitution bi moo leen ko garantir tey jii dañ nekk ci réew moo xam ni kenn respecté tout benn droit parce que mun nu comprendre euh, ay nit citoyen sénégalais dem ci autorité bi demander une autorisation pour tenir benn manifestation pacifique ñu bëgg leen ko xañ te constitution bi garantir leen ko ñoom ñu nangu li nga xam ne moom la ma leen yoon yoon may mooy dem dem marché ji ñu fekk leen foofu jàpp leen euh, toroxal leen donc tëj leen vraiment ñun mën na ko accepter en tant que sénégalais donc il y a trop d'injustice dans ce pays là te il faut il va falloir que ça cesse. donc euh, procès bi renvoyé nañ ko le le le 27 ndax loolu lu leen lu leen bett la. bon tu sais avec ces gens là ils sont toujours dans dans la manip dans la manipulation. donc euh, aussi à vouloir faire mal maanaam bëgg toroxal gars yi sonal leen xam nga parce que vrai très honnêtement ñii seen place nekkul ci ci kaso bi sincèrement des gens comme ay député son euh, euh, honorable député Déthié Fall ah Mame a Pam ah le maire Ahmed dara ak tous ces jeunes la tous ces gens yi nga xam ni ay sénégalais lañu vraiment bëgg seen réew gëm seen réew donc yërëm seen askan moo tax ñu gënoon doon doon doon ñaxtu donc ñooñu defe naa mérité wuñu lii. donc euh, bëgg leen toroxal nag bëgg leen sonal rek a tax ñu maintenir leen mais vraiment euh, tey procès sax waroon am sincèrement dañ leen waroon bàyyi depuis le premier jour ñu def seen kër voilà. ñu bëri loolu lañ doon xalaat euh, ganaar bi ñu leen jàppee jour manifestation bi parce que la plupart dañuy gis ne leader yi bi ñu leen jàppee après dañuy xaar ba ngoon ñu ñu ñu leen. dem seen kër pour juste euh, calmer euh, la situation mais euh, bii pas dafa demeewul noonu ndax ñi nga xamante ni ñoom ñoo leen jàpp dégg nañu ministre de la justice bi mu wax képp koo xamante ne da ngaa violer loi il faut s'attendre à des conséquences yi nga xamante ne pareil la. fii kenn viole fi loi bu fekkee dafa am ñu violer loi du kenn ku dul autorité bi c'est l'État. parce que état moo nu xañ sunu suñu suñu àq ak suñu yelleef donc ñoom ñoo njëkk violer loi kon bu fekkee dafa am ay hors la loi ñoom ñooy hors loolu benn la deuxièmement dañu yaakaar ne peut-être bu fekkee ni dañu jàpp ñii ñeneen ñi dootuñu génn bu ñu wootee manifestation tey la ñi ñi gën a déterminé tey la ñu gën a déterminé pour génn pour ñaxtu loolu c'est sure et certain donc li ñu def nii da amul sens les gens ne vont pas abandonner le combat te incha allah lépp loo xam ni euh, maanaam lu nu war la ñun en tant que ay sénégalais dinañ ko def ba ñu respecté ñu parce que ñun mun nu nekk ci dëkk boo xam ni amul loi ñi nga xam ne ñoo nekk si nguur gu leen neex la ñuy def dara du leen ci fekk. les autres citoyens yi nga xam ni peut-être ñu ngi bokk ci kujje politique bi lu ci waay def lu mu tuut tuuti rek ñu jël la tëj la si kaso bi rapide so bàyyi la fa loolu ah. ana ana ana ana ana mi ngi si kaso bi depuis boobu ba léegi depuis combien de temps qu'est-ce qu'il a fait on l'accuse de diffamation alors qu'on voit des gens yi nga xam ne fii chaque guddeeg bëccëg ñu ngi diffamé lu ne ñu ngi koy wax ci président Ousmane Sonko di ko saaga guddi ak bëccëg di sosal di ko wax lu ne te bu porté plainte du mujj fenn du am sax suite bay am enquête kon c'est pas sérieux nañu respecter nit ñi xam ni la loi est là pour tout le monde waaw bu fekkee ni la loi est là pour tout le monde nous on va respecter la loi mais bu fekkee ni loi bi dafa am ku am ndey ak ku ma ndey donc anarchie mooy am boobaa nit ñi leen neex la ñuy def voilà. def ndànk parce que on sait jamais wara a waruñ génn parce que bu ñu euh, génnee de mën na ci am gis nga dee moom allah kulli dina ñëw fu mu la fekk di nga dee. bu la fekkee ci mbedd mi di nga dee bu la fekkee ñaata nit a dee ci accident ñaata nit a dee ci eh, eh, ci nu mu tuddati ci gaal yi ak feneen ak feneen làmb ji ñaata nit a ciy dee te ñoo ñëpp loolu taxu leen woon jóg lan moo leen taxoon jóg yaakaaruñ ko woon moo tax dee moom ala kulli fu la fekk dina dee moom sax muy Macky Sall bu ko dee wala fekk munuñ ci dara ñi ko fi ëppoon barke ñi ko fi ëppoon mën-mën ñi ko fi ëppoon xam ko fi lépp ba dee jotee dañoo dee te munuñ ci dara te kiil arrête moom daal dañ ko joxoon réew mi amoon yaakaar ci moom yaakaar bi ñu amoon ci moom tas na na bàyyi ñeneen ñi ñu am yaakaar moo tax nag gis nga soon Sonko bu ñu sonn sunu bakkan yi lañ ci teg xam nga lu tax li ñu soxla ci réew mi moom lañ ko gisee muy jub nit ku jub lañ amutoon 60 ans ñi fi am ñëpp lekkukatu xaalis lekkukatu riba ak formation góor jigéen loolu rek lañ fi gis. mais au moins moom tey wane ne c'est un patriote wax Sénégalais yëpp di ko dégg àdduna yëpp di ko dégg bëgg génn sax dem julli ju ñu ne doo julli loolu fu mu moom bu julliwul na bàyyi ñeneen ñu julli loolu xam nga ñaaw na ci réew mi yow julli woo te nga ne jullit nga sa mbokk julli ne day dem jumaa fi muy dem jumaa la jumaa xanaa jumaa am na nit nit am na droit dem jumaa nañ ko encadré mu dem julli ci kon moom lan casserole bi déjà commencé na def ay euh, victimes de ci université étudiants yi euh, diggante étudiants APR ak étudiants Pastef fii euh, daan nañ jaamaaxloo ba ñu am ñi nga xamante ne jot nañ fa am ay gaañu gaañu. ndax yaakaaroon ni ki tey bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko waxoon na pour ñu def concert casserole à partir de vingt heures ba vingt heures dix. mën na jur beneen coow. waaw coow moom ñoom ñoo bëgg indi coow rek coow moom ñoom ñoo ko bëgg a indi coow jaru dafa dafay def nu mu tuddati casserole. ku mën a tëgg tëggal ku mënul bàyyil ku d'accordul ak ñoom bul tëgg am nga ci droit wala amoo ci droit ku d'accordul bul tëgg ñoom ñi d'accord nañ leen bàyyi ñu tëgg loolu seen fi kii gis nga Maguette seen moom comme waa mbuur bi moom li mu mën mu ngi koy wane na bàyyi ñeneen ñu wane lu ñu mën ce qui dinañ tëgg dinañ yëngal képp kuy opposant te nga xam ne ne àndoo ci dictature Macky Sall bi tëggal yëngalal ñoom it bu ñu mënee nañ tëgg yëngal. bu ñu tëggee yëngal kenn du leen si. loolu est-ce que xalaat ngeen feebar xam ne aussi tamit ñëw ci benn tolof tolof boo xam ne mi euh, ñi feebar ci hôpital yi sonn. loolu buñ ko wax buñ ko wax université université moom kumbal moo nañ waxante dëgg loolu du wax ay maanaam ñu feebar ñi feebar ñi ala kulli dinañ feebar ñun ñii kenn moo la wax du ñu feebar bu ñu feebaree tamit lu ci mën Ousmane Sonko du feebar keneen ak keneen du feebar kon loolu ay Sonko ma ngi joxe bon exemple di jéem a yee askan bi waaw ci bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu waaw est que ndax rafet na ci image moom muy génne yenn kàddu yooyu di ko wax waaw bàyyi war a waaw mais nag ñi feebar allah kulli bu nekk duñu leen topp dañuy seet rek kon réew mi du ma sa jag ku nekk nag toog fi mu toog rek ne yàlla baax na ñi feebar ñi war a feebar yow hôpital yi ñi dee ci hôpital yi lan moo leen fa yóbbu xale yi ba ñuy dee lu ñu maanaam euh, hôpital yi ci xale yi bébé yi loolu négligence ñan la du négligence état ay xale yu ñor ay xale yu leneen dal ah ñii di dee ci géej ñii dee nañ fa ne kon loolu lu ci Ousmane Sonko li devoir am lay def waxul dara dafa ne 10 minutes 10 minutes kañ amul problème 10 minutes yëngalal wane ne am naa lu ma naqadi wala réew mi ànduma ak Macky Sall loolu c'est facile loolu lan moo ci nekk 10 minutes wala 15 minutes wala 20 minutes loolu yàqul dara ci réew mi mënul déranger dara ñi fi nekk ni nga xam ne boo demee ci hôpital doo faju xanaa ñooñu ñoo ëpp problème wala ñoom ñoo gën a ji nit ñi problème ñoom ñoo gën a indi jafe-jafe réew mi man daal ce que je veux vous dire que dans ce pays que le président Macky Sall arrête ici comme on dit que ne euh, nu mu les leaders de Yewwi Askan bi ils ont commis une erreur une erreur qu'ils ont omis c'est quoi c'est une opposition radicale qu'il évite moom daal ici au Sénégal si tu es euh, nu mu tuddati euh, si vous êtes euh, un opposant radical tu as fait un kon loolu nag la Sénégal yi mënut a concevoir qu'il arrête que réew mi nekk ci jàmm mu dem ci jàmm yàlla jafal ñu ñeneen ci jàmm ñu ñëw comme le président aussi dafa gën a armé ñi nga xamante ni ñooy force de l'ordre bi manifestation bu keroog gi gis nga li nga xamante ni force de l'ordre bi wane nañ ko ci doole ba manifestation mu jëwul euh, débordé wala mu am ay ay ay saccage yi nga xamante peut-être ñu bari dañ ko dañ ko dañ ko doon ñort wala yaakaar ni dafay am Eh, tey euh, ndax loolu tamit du doon loo xamante ne dafay dafay dafay dafay euh, handicapé seen seen seen manifestation. non loolu yàqul dara yàqul dara ñun yàquñu ñun yàquñu de. mos nga euh, gis ne autorisation bu dee di am mos nga gis loolu. mos nga gis autorisation boo xam ne ne dee am na ci manifester ñu ñu autoriser ko dee am wala blessé am wala yàq-yàq am mos nga ko gis foo ko gisee rek mooy lu ñu tere. te lu ñu teree nag dafa am ñoo xam ne ñiiraan dem ak ñiiraan leneen bokkul am na ñoo xam ne ne yàq leen neex kooku mënoo ci dara. sécularisation mënoon nañ ñu autoriser mas pacifiquement comme def loolu lañ wax ñu bàyyi ñu ñu manifester pacifiquement suñu mbokku alkaati yeeg gendarmerie yeeg yëpp lu ñu leen équipé équipé réew mi moo leen ëpp doole te ñoom ñoo ñëpp jafe-jafe ñoom ñii ñoo ñëpp jafe-jafe fuuf keroog téye nañ ma fii nii ci police police laa wax c'est euh, gasoil bu ñuy dawalee 10 litres la ko waa ji na ko jox ma mu ne ko démb laa leen jox 10 litres kenn du ma ko wax man maa ko fekkee man lañ jàpp waa ji ne 10 litres lañ leen jox démb 10 litres ñu ne gasoil waa ji ne ko kon essence su démb bi jeex na adjudant moo génne 5000 na ko demal jëndi gasoil kon ñoom ñoo ñu gën a ñoom ñoo ñu gën a sonn parce que ñoom la xam ne ñoom lañ yaakaar. ñoom ñoo ñu gën a sonn waaw sunu ay jarbaat sunu ay frère sunu ay rakk ak sunu ay lépp ñoo fi nekk kon ñoom ñoo gën a sonn. ñoom ñoo ñu gën a sonn te réew mi li ñu soxla jàmm lañ soxla ci réew mi que Macky Sall arrête. moomu réew mi jënnul réew mi juru réew mi dina ko fi bàyyi kon nag na ànd ak dal ànd ak yar luñ ko bëgg mooy lépp luñ ko soxlaal mooy na joxe réew mi ci jàmm te loolu lañ gis loolu laa ci amoon li may wax wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf li nga xamante ne moom la wax moom Pastef Parcelles Assainies te dañoo ñëwoon fii palais si pour teewee projet bi nga xamante ni Euh, jàpp nañ ay doomu Sénégal ci jàpp boo xamante ni détention arbitraire la tegewul ci yoon non seulement jàpp nañ leen détention arbitraire ba pare di leen di leen bundu xatal di renvoyer dossier bi fu ne fu ne fu nañu fu nañu fu nañu kii ko parce que manifestation droit constitutionnel la constitution Sénégal ci article huit moo ni bépp citoyen bu am lu ko métti am nga droit manifesté wu préfet bi li ñuy def dañ koy dem yëgal ko ko pour mu ay force de l'ordre yu encadré manifesté bi mais amul droit di interdire na ko ay. te Sénégal fii léegi dañoo bëgg a gëmloo nii képp ku dee ci manifester da ngaa perte képp ku dee ci manifester waroo waroo cee dee mais manifestation kenn waru cee dee manifestation le huit bi bi bi ñu ko yoonalee préfet bu Dakar bi ñu ko yoonalee ñoo nañ manifester wax li ñu bëgg wax te amul benn problème mais pourquoi ñu bëgg a gëmloo Sénégalais yi léegi képp kuy manifester ñu la rayee yow yaa perte képp ku manifester pour sa réew xeexal sa réew boo dee martyr nga sahid nga. c'est que sa réew nga doon xeexal dafa jaaduwul te li gën a garaaw ci ci ci dossier bi mooy dafa am ci ñoo xamante ni ay député lañ dañoo am immunité parlementaire askan bi ñoo leen jox immunité parlementaire ku mel ni Mame Diarra Fam député la Déthié Fall député la ñu ñu ñu ko jàpp ko di renvoyer di renvoyer affaire bi. bu doon doy doy waay am ngeen ci yaakaar ne kii euh, le le 27 bi ñu ko renvoyé am ngeen ci yaakaar. waaw ñi ngi ñi ngi dundee yaakaar ah ñi ngi dundee yaakaar bu la 27 incha allah dinañ leen libéré bu leen libéré wul dinañ wàcc ci mbedd mi te fas nañoo manifesté wu le 29 bii di ñëw incha allah danañ manifesté par A ou par B parce que manifestation droit constitutionnel la préfet bu Dakar ak Macky Sall mënuñoo tee manifesté wu. dañuy dem yëgal ko ko rek par A ou par B bu ko bu yoonalee ñu manifesté bu ko yoonal dañuy manifesté wu par parce que constitution bi moo delloo si xelam benn aali bu Tunisie moo ko pon doole fuuf. Ben Ali fexe na ba tunisien yi mu wut benn tunisien bu ne mu wut kii boo xamante ni moom moo koy moom moo koy surveiller Ben Ali lan moo ko daaneel benn benn étudiant bu bu jàng ba pare amul liggéey mu wut burwetam di kii policiers yi xoqatal ko mu taal boppam foofu la euh, révolution Tunisie bi jugee ñu daaneel Ben Ali Blaise Compaoré moo ëppoon doole Macky Sall euh, Hosni Moubarak bu Égypte moo ëppoon doole Macky Sall mais bu peuple peuple peuple euh, égyptien bi ñu déterminé woo am engagement dañ ko fa jëlee peuple la souveraineté appartient au peuple peuple bi rek moo am souveraineté mii def nii di recruter ay policiers di leen neexal ñii mu yokk seen sol du recruter dem Israël jël fa ay matériel dem Turquie Erdogan jox ay matériel yooyu lépp day sonal boppam rek population kenn mënut a xeex ak moom dama ki sàll na xam na delluwaat xelam bu baax a baax réew mi donnu ko ci ndaayam donnu ko ci baayam réew mi sénégalais yi ñoo ko moom te moom mu neex ko naqari ko 16 mois moo ko fi dese. 16 mois day dem far force mu neex ko mu naqari ko 16 mois day dem mais lii dafa ñaaw trop sax jàpp ay doomu Sénégal am na ci ñoo xamante ni détention arbitraire Ahmed Aïdara génn euh, bi muy génn géej waaye lañ ko arrêté yéegul sax ci lieu bi ñuy manifesté woo Déthié Fall buntu 16e lañ ko fekk jàpp ko garde rapproché Sonko yi ñëw di def seen liggéey di bëgg a seen seen patron ñu jàpp leen dafa doon lu doy ñu ngi traqué ay sénégalais am na ñoo xam ne bu yàggul euh, lundi euh, dimanche fii lañ leen fekk bés yaaw lañ leen fekk ñuy réunion ñu jàpp leen ay ñoom Bayna Gueye Mouhamad Lamine Diouf mu doon lu doy doy waat di di intimider sénégalais ma ne ko Macky Sall c'est intimidation ça ne passera pas intimider intimider gi ñu intimider sénégalais du jàll peuple bi moom moom pays bi le combat continue incha allah duñ leen bàyyi ñu ngi nii di dem place ñu ngi nii di dem commissariat central bu hmm. seet yeneen yeneen kii incha allah intimidation yi muy def du jàll c'est lui le coordinateur Grand mi nga xamante ni moom